alhamdulillahi waxda wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baada wa ala alihi wa sahbihi wa man tabia hadiya mbokk yi ginnaaw bi ñu santee yonent bi ñu santee yàlla suñu borom subhanahu wa taala di julli di salmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu taxawaay ñaareel dañ koy amal ci bis bi nga xamante ni mooy bisu tabaski muy bis boo xamante ni it liñ koy màggalee liñ koy dundalee mooy jaamu yàlla kese taqarruban ilayhi jalla wa ala kese tàmbalee ko ci yéene bi ngay am ngir fas yéene cee ren di am xarum tabaski ñu waxoon ci xutba bi passé ci anam bi ngay amee xar maanaam xar mi bu góor bi lay nekk kuy boo ko mën la am nga jënd bu góor bu ñu tàpp suñ ko mën la am nga jënd xar mu jigéen boo ko mën la am nga wàcc ci bëy boo ko mën la am nga wàcc ci am nag boo ko mën la am nga wàcc ci gëléem comme niñ ko tënkoon ci xutba bi passé waaye bépp boo ciy mën a jël na nga ko def mu doon ngir jaamu yàlla mu bañ a rax lenn ni ngistal ndaxte yàlla suñu borom subhaanahu wa taala nee na lan yanaala allaha luxumuha nee na ndawal bi nga xamante ne maa jënd xaru un million maa jënd xarum nangam maa jënd xarum am kuy moo xamante ne kaay di ko ci puukare wo yàlla nee na soxlawuma loolu wala dimaa'uha soxlawuma ci deret ji walakin yanaaluhu taqwa yàlla nee na lam cay lam ca nam lam ca bëgg mooy nga dekk ngir jëmmam ji kese ngir roy lii di sunni suñu maam ibrahima alayhi salaam bi raw bi bi law ba ci ci xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax mbokk yi gàtt goog nga ciy lewtal gàtt goog ngay lewal na nga bàyyi xel ni na la sa gàttub tudd doon waxee ak yow sa lisaanu xaal ndax kenn ku nekk bañ lay tudd moo xam ca karaw gañu dagg wat ko gas ko suul ak xar wañ la lewal bañ la rendiloon muy ay sunna ci tudd karaw ga dafa waxoon ak yow ci sa lisaanul xaal ci la ni ñu ngi la jële ci ñu ngi ma jële ci yow gas ma suul na nga bàyyi xel ni minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra fii ñu ma denc ni ci biir suuf si na nga bàyyi xel ni fi nga may fekk si kon sa dund gàtt nga fay dund liir bi lay waxal loolu waaye it gàtt biñ la lewalal mi ngi wax ak yow nee la yàlla moo ma sàkk ngir ñu teralee la sa bis bii waaye na nga bàyyi xel ni bu fi jëf lenn mala ci kaw suuf ndax man ab mala laa kon gàtt bi ngay jël di ko rendi na nga rafetal na nga koy rendee te boo koy def na yàlla kese tax nga koy def ndax yàlla moo la ko teral te moo la ko digal kon bis la boo xamante ni comme ni ko yoon saa sallam ne waxee ni fa innaha ayaamu aklin wa shurbin wa zikrillah bisub lekk la ak naan waaye bisub tudd yàlla la bisub sàbbaal borom bi subhaanahu wa taala muy bisit boo xamante ni dañ ci war di bàyyi xel ñi nga xamante ni ay fuqara wal masakin lañ koy wax ndaxte yow mi jënd am xar yow jàppal ne am nga dëkkandoo wala mbokk bu nekk bu sës ci yow boo xamante ni amu ko te tuddul la ko waxul la ko waaye na nga fexe ba yow sam xarum tabaski li la ci yoon saa salaam wax na nga ko def mooy na nga ko xaaj ñetti xaaj tabaskee benn bi ak sa njaboot nga lekk leen li ak sa njaboot denc beneen xaaj bi waaye beneen bi na nga bàyyi xel sa dëkkandoo yi ndax kenn ku nekk bu sàkkee loolu defal ko dëkkandoom bi mu dendal moom dina am la ngeen am mooy dina lekk ndawal te di ngeen bokk dund li nga xamante ni moom ngeen dund ci bis bi moom mooy teewandoo muy góor jigéen mag ak ndaw ba ci ñi am xayd teew ci jullikaay ba ngir dabu yiw yi nga xamante ni mooy am ci jullikaay ba loolu sunna la soo xamante ni léegi daanaka mu ngi dee bu tabaski jotee rek dañuy yebal maanaam bu waa ji mooy ñëw rek ànd ak i doomam dem bàyyi fa soxna see ñeneen ak ñeneen ñi alors que yiw ba fay am bay wàcc ci bisu tabaski bi kenn ku ne da nga war a bàyyi tëj sa kër ñëw teewe si xutba bi ndax imam ba lam cay waxal ñépp la soxal ci dëkk bi luy defar la ci njaboot gi luy defar penc mi luy defar adduna bi waaye it yiw ya fay wàcc bokkul ak yiw yi wàcc ci beneen bis kon bis la boo xamante ni bisub lekk la ak naan waaye bisub sant yàlla la yàlla na ci yàlla yóbbu ak jàmm suñu xojjaat yi yàlla yàlla mottali seenug aj te delloo si wàlleen ci jàmm kon bisu suba incha allah ñu koy fàttaliwaat bu baax muy bis la boo xamante ni dañ ko war a woor képp ko mën a woor na nga ko woor woor loo ko sax say njaboot te ñaanal ci yàlla tamit suñu dëkk bi yàlla fi jàmm ñaanal way dawle yi ñi nga xamee ni jamono ji ñu ngi ci xufra tam ni xufari naar yàlla na yàlla gorel leen ñëpp ci safara defal seen rawda yi mu nekk rawdatun min riyaadu janna ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قوموا الى الصلاه يرحمكم الله الحمد لله الذي جعل يوم عرفه يوم يوما جليلا للقدر يداعى فيه الثواب والاجر ويغفر فيه الذنب والوزر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبع هديه اما بعد عباد الله فاوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم والعمل بما فيه رضاه والتزود للقاء يقول جل وعلا في كتابه الكريم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب mbokk ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu boroom subhanahu wa taala moom mi jël bis bii di bisu arafa muy bis bu mag bis bu am dayo ci islaam di bis bu ñuy ful lii di tuyaaba yi waaye di bis boo xamee nit yàlla suñu boroom subhanahu wa taala da ciy jéggale lii di ay bàkkaar ñuy seede ne amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom subhanahu wa taala bokkaale ñeelu ko di seede ni muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndawam la jaamam la yàlla nañ ko yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak njabootam ga ak képp ku topp ci njubu sayduna muhammad salallahu alayhi wa sallam ila yawmi diin ñuy dénk suñu bopp di leen dénk ragal yàlla ak di jëfe lépp luy jur ngërëmu yàlla te ñuy yóbbulu ca fa nga xamee ni fa lu ñu jëm fa ñuy mujjee mu yowmal qiyaamati te la gën tamit ci yóbbal mooy ragal yàlla yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu ngi wax ci alquran mu ni wa tazawwadu na ngeen yóbbalu fa inna xayra zaadi taqwa li gën ci li ngeen di yóbbalu nag fu ngeen mën a ne mooy ragal yàlla na ngeen ma bàyyi xel maanaam na ngeen ma na ngeen ma ragal yéen ñi nga xamee ni yéene borom xel yi mbokk yi ñu ngi dëgmal suba ak jàmm incha allah bis bu màgg muy bisu yawmu arafa muy bis boo xamee ni it bis bu yàlla yëkkati la ci bépp bis te dafay doy rek ci misaalu yëkkatikoom borom bi subhanahu wa taala moo ca waat mu ni wa shahidin wa mashhud bis bi nga xamante ni kii seede ak ñam ñiy seedelu muy keroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu taxawee ci jabalu arafa di wax ak ñam fa woon ñépp di ay jullit di leen laaj ndax la ko yàlla waxoon mu jottali ko ndax jottal na ko ñu ne ko jotal nga kay ndax doxal na ci seen biir ak maandute ñu ne ko aha kay lam leen tontu lépp lam leen wax lépp bañ ko ca tontoo mu yëkkati baaraam ba ni allahu mashhad yow yàlla seedeel loolu kon mooy yonent saa salaam wax ji muy wax ba tey ci xadis ni al yawmul mashhud bis bu bis boobu muy wax yawmul mashhud mooy yawmu arafa mooy bisu yawmu arafa bi ñu war a fekkee suba ak jàmm insha allahu taala muy bis boo xamante ni bisub ñaan la bis boo xamee ni it la ca yàlla di fay ci ak yiw bis bu bari ay yiw la ci bépp xeetu jàmm yàlla boo ca def muy bis boo xamee ni it yàlla suñu boroom dina ci goreel ay nit biir safara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci xadis ni ma min yawmin akthara min an yuctiqa allahu fihi abdan min annaar min yawmi arafa xam ngeen ni yawmal qiyaam moom jotagul waaye képp ku faatu rek fan la dugal ni mooy sa xabr nga dem ci beneen monde bu ñuy wax monde barzax xayaatul barzaxiya dund googu noonu yoon saa salaam nee na képp koo xamante ni tontu nga ci laaju malaaka yi sa biir xabru day nekk xufratan aw rawdatan min riyaadil janna day nekk ab jardin ci biir jardin aljanna sa biir xabru am na ñuy dund loolu waaye képp koo xamee ni it tontu woo ci laaju malaaka yi yooyu noonu maanaam na ngaa nekkoon ci kaw àdduna fii rek di def sa lu la neex ba nga dem wuji sa boroom nee na sa bàmmeel day nekk xufratan min xufrati naar day nekk ci yenn pax ci paxu safara yi yàlla nañ ci yàlla musal moo tax yoon saa sala wax ne ni bisu yow arafa suba bis la boo xamante ne képp ku ko dundal ci niñ ko war a dundalee boo ci ñaanee yàlla ci sa mbokk mu dawlu nekk ci xufratan min xufrati naar yàlla mën na koo muccal yàlla mën na koo goreel ci googu safara dugal ko ci aljanna ci bisu yow mu arafa boobu la aaya bi wàccoon te benn yahud ñëwoon ci Omar ibnul Xattaab ni ko seen aaya bii de wàcce mujjee wàcc bu doon ñun la feet lañ koy def Omar ibnul Xattaab ni ko xam naa de aaya bii ngay wax fan la wàcc ak ci ban jamono la wàcc mu ne ko mi ngi wàcc ci bisu yow mu arafa te bisu aljuma la wàcc tamit muy aay bi borom bi subhanahu wa taala di wax ni al yawmu akmaltu lakum diinakum bisub tey bii de la seen diine gi mat lépp loo xamante ni lu ñuy atteewoo ci sharia la matal nañ ko wa atmamtu alaykum ni'mati xéewal yi ma leen waroon wàcceel muy jëf yooyu war a jëf ngir suñu dund ni mu gàttee xeetu muhammad sallallahu alayhi wasallam suñu dund ni mu gàttee nga ciy jëf lu tuut yàlla fay la ci lu bëri kon dund gaa barkeel moo tax yàlla mu ne wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diinan maa ngi leen di bëggalee nag gërëma leen diine nga xamante ne mooy diine islaam muy diine gu yàlla reconnaître kon bis yow mu arafa bi di suba insha allah niñ ko war a dundalee moom mooy ay ñaan comme niñ ko waxee sànq sànq ak di njëkkalante ci lépp luy jur ay yiw ak it di ñaan ñaan bi nga xamante ni moom la ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale faqad kaana xabibuna wa qudwatuna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonante bi sallallahu alayhi wa sallam de nekkoon na di bëri lu muy ñaan ci bis yow mu arafa mu subak jàmm waaye mu ni xayru duaa yi duaa yow mu arafa bis bi gën ci ñu ciy war a teewlu di ci ñaan mooy bisu yow mu arafa wa xayru ma qultu ana wa nabiyuuna min qabli te la gën ca lañ ca war a lañ cay wax lu gën ca loolu ma ca war a wax moom muhammad sallallahu alayhi wasallam lu mu ci war a ñaan ak yonent yi ko jiitu woon mooy wax ji laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir li mooy ñaan laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wax ji yoon saa salaam nee na lépp loo mën a ñaan lépp lu ñuy wax lu tudd ñaan ci bisu yow ma arafa la ca gën ca lu mu mës a wax moom ci ab ñaan wala yonent yu ko jiitu woon daan ko ñaan mooy wax ji lépp luñ ci ñaan nag yàlla ko yàlla nangul te muy bis boo xamee ni yoon saa salaam nee na bis la buy boo xamee ni day taxaw ci sa dund ci ñaari fay yuñ lay fay ndax mu ni képp koo xamante ni woor nga ci bis boobu mu bis yow ma arafa suba ak jàmm incha allah képp ku ko woor yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yukaffiru sanata almaadiya wal baqiya bàkkaar yi nga defoon mooy bàkkaar yu ndaw yi nga defoon li nga waroon a xool te xooloo ko felantal la nga waroon a wax tuub ko yu bëri yoo xamante ne ay bàkkaar la yoo toggoo yow doomu aadama ak sag matadi ca at may weesu yàlla dala koy jéggal ci koor gi nga woor ci bisu yow ma arafa bu suba ak jàmm ba jéggalaale nag assuré la ak njéggal ci wa at bi nga jëm bi nekk sa kanam kon woor ci bis yow ma arafa daye goog noonu moom la am ci ci jaam ñi in hada yawmun man malaka fihi samaahu wa basarahu wa lisaanuhu gufira la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne li ngay li lay may loolu li lay may nga ñaan ci yàlla nangu la ko li lay may it yàlla jéggal la ci sa bàkkaar yi weesu woon ci at mi ak at mi nga jëm mooy nga wattu sag làmmiñ ba doo ci génne lenn loo xame ni luy waxi mboosoor la wala luy jur bàkkaar nga wattu sag làmmiñ wal jawaarix ak sa cër yëpp sa bët sa nopp sa lépp loo xamante ni ni nga koy sàmmee ci boo wooree ñoom saa salaam nee na képp ku ko defee noonu ànd ak sa koor gi incha allah yàlla dina la jéggal sa bàkkaar yi nga weesu woon ca at mee passé ak at yi nga jëm yàlla ko yàlla defal qul ma sami'tum wastaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril muslimin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim